defe naa tey su ma jumul waaye yeewi askan wi dañuy dem ci sunu xalif bi Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg tëwee. ah, ah. que demuñu fa ba pare. démb wala tey lire naa source a mu ni une délégation de yeewi askan wi reçue en audience ce mardi. ce mardi tey euh, donc voilà par le xalif général. kon tey la ñu war a recevoir waaw. ñoom démb def nañu sax point de presse boo xamante ne ñoom Birame Souleye ak mhm. euh, ñoom Ahmed Aïdara ak ñeneen ña ca topp en tout cas wax ci situation dëkk bi mais mais euh, est que Papa Assane moi la question que je me pose c'est que euh, série de conférence de presse yi ñuy def ànduma ci de est que am na utilité ànduma ci de est-ce que am na njëriñ fi bilaay sàmb bilaay sàmb ànduma ci xamul ah ma maandu bokk waaye lenn la maa wax sa gis-gis ok opinion waaw comme duma ci lenn avis waaw avis ma xalaata bopp moo di jamono bi il s'agit de quoi ay nit yu tëdd nekk ci souffrance grève de la faim ou pas sonn nañu réanimation ou pas sonn nañu lan moo tax opposition bi au-delà des déclarations c'est vrai que ils peuvent sortir déclarer wax ak nit ñeeg et sàmm kii koor xam nga sàmb ak ak ngaala. Hmm. opposition bi du ñu xool tamit yeneen moyen waxuma moyen de violence de yeneen moyen hmm. bëri na de. Hmm. y la possibilité de parler au président publiquement à l'écran et tout y la possibilité aussi de lui parler underground. problème bi nag mooy soo nee wax ak président underground ñu ne yaa ngi diil loolu tamit coow la. nañu waxante dëgg rek ci yàlla commissaire police moo téye sa njaboot soo demee wax ak moom est-ce que dil la commissaire ñi nga téye nii bàyyi leen ñii ñu dara sa gars yi ñoo leen jàpp non non dañ leen dégg ñuy wax di attaqué mais commissaire yow tam mën ngaa nekk ci réew mi ci tëkk te demee noonu faw ñu wax suñu xalaat yi fi nekk ci ñi ko ci mën bu dee Khalifa Ababacar Sall ak Barthélemy ñooñ ñuy wax ay trait am nañu possibilité dem toog ak président Macky Sall kon ñooñu nañ dem toog ak président Macky ne ko bàyyi njabootu jàmbur yi ma gëm ne du ñu ay traître man ma ko wax man man ma gëm loolu waaye comme ñi ëpp loolu la ñu gëm kon nag yéen ñi nga xam yéen la ñuy jiin loolu dem leen nga wax président Macky ne ko bàyyi ñi dina yombal sax gën a leeral sax lu tax ñu war leen ko bañ a jiin tu comprends sur la base du principe. Barthélemy fi mu toogee wax ne Ousmane li kaa libéré sama loxo ngi ci pour man erreur de com la il fallait pas le dire su fekkee ni mën nga ko bu def ko te bu ko wax seen problème ñu wax de dëgg rek te yàlla tax mais dans l'ensemble yeneen opposants yi fi nekk yépp ku ci nekk xam nga président Macky Sall soo ko xamoon démb xam nga ko tey boo ko xamoon démb te xam nga it xam nga it tamit sekk ngeen waxtaan ak la ca des mm. réew mi fii am na ñoo xam ne dañuy xulil am na ñoo xam dañuy taxawu raag ca kaw waxtaan ci suuf am na fi. Hmm. Eh. ñuy raag ci kaw waxtaan ci suuf. sëñ bi ma ne fii à la Sénégal am na noo xam dañuy yuuxu sa kaw ñépp nañ kii ñuy waxtaan ci suuf waxtaan boo xam ne xolli waaw mais affaire bi nu muy demee waaw ginnaaw loolu yëpp am na kon nanul pexe te Yàlla tax. te mu dëggu pexe ba dem ci ñu libéré ñii coow li leen rek la amaana bu fekkee recevoir nañ leen tey ak xalif bi amaana ñu am solution waaye man li ma jaaxal mooy régime bi kilifa diine ñaan lañ leen ci façon wu ne ci lu ne nu lànk ah ma defoon dañ ne euh, ñiy féete ci ci wàllu ñi féete ànd ak euh, euh, Ousmane Sonko forme de politique bu bees bi ñu indi ñoom ñoo tax léegi nit ñi joxatuñu cër kilifa diine yi bu baax a baax parce que boo dee am boo dee am seetlu ci dégg-dégg dafa mel ni loolu la ñuy gën a expliquer que ne vraiment ñàkk jox cër gi ñu ñàkk jox sunu kilifa diine yi waaw moo tax ñu maanu ci ci situation dëkk bi ni mu demee nii. te à cela nag on se demande est-ce que bu ñu demee aussi seeti xalif bi ndax mën na ci yaakaar ñu am ci euh, jële ci solution boo xamante ne dina permettre comme tu dis Ousmane Sonko ak ñi ñu jàpp ci kaso yëpp ñu bàyyi leen ñu dellu seen i kër. dama lay wax nag benn affaire ci sama gëm-gëma bopp ak samay limite hmm. parce que ñun ñun xamuñu dañuy topp di déglu rek di taataan. ruubekat ak ñiy infiltre ak faux compte yi lu ci bëri ñoom la. Hmm. au départ rappelons-nous comment le Pastef fonctionnaire bu waxee dëgg rek te yàlla tax ñoo fi njëkk a organiser ca place la nation toog ñëpp toog. seen leader di expliquer nu la déglu discipline bu ñu waxalee dëgg rek te yàlla tax laa wax ñoo ko fi initier ñu pare nettoyer bërëb ba. Hmm. mu jekk rafet yiw seen leader initier lu fi musuta am. présenter exposer un livre waa après naan du programme dafa critiquer rek ndokk waaye la mu critiquer am na bu dee critique en sus de ses propositions donc c'est c'est quelque chose d'avenu lu baax la léegi lan moo changé loolu ba ñu joxaat leen beneen image ji nañ leen fi salafiste ak rebelle dafa am tooñ yu bari yu tegloo Pastef moom dañ leen a tooña tooña tooña tooña tooña tooña tooñ tooñ ba tooñ bi doon ab tooñ ab tooñ ab tooñ dañ leen a tooñ ba tooñar bi leen ba tooñar bi leen hmm. loolu mooy sëñ bi billaahi wallaahi tallaahi ak salaatul faatiha ak alxuraan ma lay wax tay damaa garaaw barke bàyyi lay alahi hmm. xalifa Ababacar ak Alaaji Fàll ak maam Baay ak maam Bukunta ak Amar Ndaag ak Amar Njëgër Amar Dem Amar Cissé Pir Aliou Cissé Jaamal Alaaji Malick Puy Mbaaw <laughs> ak sanu maam Cheikh Omar Fouti yoog El Hadj Ibrahima Sakho. bii dama ko gëj a dégg nag. bii de koy indi plus souvent. parce que Cheikh naa Cheikh Saad bu Chérif boo xeet Cheikh naa Cheikh Abou Khadre Jeylaan Cheikh naa Cheikh Metidiane Chérif Vadal. barke alxuraan laa la wax. Hmm. Pastef dañ leen a tooñ. maa ko wax. lu ma gëm la. gis ni maa waxee nii gëm ne Barthélemy ak Khalifa du traite ba ñu féetale ma jiiñ ma ndokk yàlla loolu la ma gëm tafu leer la ma ko teg. noonu laa gëmee ni Pastef dañ leen a tooñ ba tooñat bi leen jël leen nag ruube leen dugg seen biir juuxu leen ñuuxu ngay taxaw gis naa ñëw ne la man maay diw Sonko objectif la am. joxe ba kenn. déedéet waaw objectif bi mooy mooy fexe ba image bi nuru leen na. déedéet maanaam joxe naa sama bakkan ci Ousmane. waaw mais ba installé confiance bi. waaw mais objectif bi leneen la. mujjantal gi lan la. te ruube boobu dafa dem ba ci. ñi wër Ousmane ñoo xam ni ñeneen ak ñeneen dañuy ñëw jege jegelu waaye nekkuñ ci waaye nekkuñ ci. Hmm. ñeneen ñi dañuy ñëw pour ut info ak leneen ak leneen parti bu bees la seen discours fort na nit ñi ñu ngi leen dee déglu ah attention état dafam doole. Hmm. après benn bokk yaakaar lu coow li bëri bëri ay cuune newuñu fa. Hmm. ay punkali maam yi acteur politique yooyu. xam ni ca communiqué lañ déparé di wàcc ñëw xam bu baax yoon bi. ak lu coow li bare bare nag moom kay da nga naan yoon ab développement réew mi lañu xamut nuy def ba réew mi nit ñi suqali ko moom mënuñ ci dara waaye politique du ko génn wëlbat lijjanti fexe ba yàq ñu defar ba ah su foox ci loolu waaye loolu du loolu du réew. est-ce que loolu génie la. du génie. Hmm. du génie. loolu kay moom da nga naan aay beneen façon dafa mel ni ki xam ne bu ñu waxee bu nee yàq mu ne yàq rek lay def ak aay dafa aay ci yàq defar rek lay def ak aay dafa dafa aay ci defar Sénégal soxlawuñu niveau bi ñu indi nii mais malheureusement dañu cee indi parce que faagaagal. après nag lu tax loolu am. sàmb wax ji nag mooy lu waral Pastef yi non ñii dañ leen bloqué lan moo indi di solution parce que dafa ñëw indi lu différent dem dans un sens ñu ne non non liyee jur léegi nag pour nga disul passif xulit ngaa la da ngay dugg ci biir mu tas lii rekk fi ne mbete science fiction mbete science fiction nga takkal leen foofu la ñu doon waxee léeg-léeg ñu wax du ñu dégg mais ruubekat bi ruubekat bi mu ngi ci commentaire yi hmm. xulil ruubekat bi mu ngi ci commentaire yi day jékki-jékki ne la paasan yow xalifiste nga bu nu sonal waayew moom Sonko intéressé wu ko mais foofu lay laal def bu mel ni man topp ci way kii kii kii <laughs> déglu leen fi noo waxee Sonko fi ne loolu la yàlla dogal ci biir nekk fi nag faaw dëgg bi wax réalité bi wax ñan ñoo am intérêt tey Ousmane Sonko Barthélémy jote mais force la bu kasee disparaître nag foofu day yomb day oyof foofu la ñuy waxee donc ñooñu bu ñu déggoo ruubee leen rek nay saf rek nay nay tàng rek foofu na boy saa dafa am noo xam dañ ciy dund am na noo xam ne siwuñu woon bi gur boobu di nekk doxuñu woon nekkuñu woon léegi dañuy nekk xulil eh sëñ bi sam am na ñoo xam ne bi yow yi askan di nekk normal nekk bloc existé wuñu xulil ba tas tous tasar ba dikkee la ñooñu di exister te dañuy dox ci ruube bi nag insister insister nag parce que foofu mooy tax ñoom ñuy exister en passant moo tax faw nu dem ñun de amuñu xel dañuy gëstu di laajte waaye faw nag ñu dem ci ci jéggi nag li lii nekk suñu kanam ni ñu jéggi ko revoir la donne aujourd'hui il faut libérer Ousmane Sonko il faut libérer Hannibal Djim il faut libérer Cheikh Oumar Diagne Ousmane Sarr Mapate Mbaye Amid Dia euh, Oustaz Assane Seck Karim Gueye on l'a c'est vrai Abdou ak ñeneen. Mhm. plus de mille personnes. ñooñu ak seen ay famille vous avez mille personnes wala lu teg c'est plus de dix mille familles li ma waaj doon wax. plus de dix mille familles. waaye am na ñu yàgg ci kaso bi nag quand même. yàgg ci kaso bi ñeneen nga xam ne dañ leen jàpp ay mandat de dépôt ñu nekk de jeunes criminels wala def leneen lu dul crime dañoo sàcc xaw ma lan ñu teg leen fa fàtte leen ñoo xam ne ça n'a rien à voir ak politique bi en passant. imaginel mais ñi nga xam ni ci ma am na koo xam ne dañ ma ne da dem jàkk ja bàyyi sànni lacrymogène nit ñi tas gars yi ñoo gis ko mu taxaw ñu gàddu yóbbu. Mhm. mu ngi ca kaso loolu loolu loolu lan la. Mhm. donc imaginez toutes ces personnes ak leur souffrance li ma euh, madame Dembélé doon wax keroog ne ma dafa gis ci cave yi. Mhm. ay nit famille yi keroog la may expliquer ne ma am na ci kenn koo xam ni doom ji léegi mu nga ca kaso ba di jàngale ci kaso bi. Oh. am niveau. nekk un bon produit pour ce pays là nga jël ko tëj ko ci kaso bi parce que nee nga Pastef la yooyu tooñ la heureusement nag yàlla moom dafa juste juste juste ba lu waay def mu delloo la. mais mais papa Assane ma ma ma pëtax lu foofu rek. waaw laajaale la benn question boo xamante ne ça me taraude l'esprit. Hmm. Euh, euh, looy euh, qu'est-ce que tu toutes ces personnes qui disent que aujourd'hui cette forme de de. de protestation de résistance qui, oui. la grève de la faim bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko tàmbali euh, te bi mu ko tàmbali aussi mu am ñu bëri ñoo xamante ne dañoo topp mouvance boobu dañoo nekk également